alhamdulilahi rabil alamin baada auzu billahi min ashaitan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad salallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallama taslima mbokki jullit ñi nga xamante yéen ñu seetaan ba tey ci Chérif Dabakh TV ah lii nag moom yaakaar naa ne spécial la ci Chérif Dabakh TV ñu ñëw toog fii ci Nianga Edy toog jëmm ju sell ji jëmm ju tedd ji nga xamante ni mooy dogit ci Ceerno Adama Gaye muy xalifaam ci Ceerno Mamadou Gaye Mamadou Adama Gaye yàlla dogal jataay bii moom wax nañ lu leen waxee léegi jataay bi spécial la waaye duñ ci sori kenn rek la jox mu nekk ci njabootam muy Thierno Cheikh Tidiane Gaye muy njaboot ci Thierno Mamadou Adama mu ter ñu alxuraan su paree rek ñu jox oustaz Aliou Thierno Aliou Diallo mu présente ñu ki nga xamante ni mooy Thierno Mamadou Adama mu am mooy ci. paree rek joxal ñu ceerno ci boppam am ay kàddu ndénkaane ak kàddu yoo dina ko jëmale ci ziar bi jëmale ko ci mbokku taalibe yi waaye jëmale ko ci kilifa yi nga xamante ni ñoo fas yéene ñëw ci jataay bi incha allahu taala ak fépp bu julli ci àdduna dañu seetaan ngeen baal ñoo xam bisimilah ceerno أعوذ بالله من الشيطان إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدعنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا ولقد كتبنا من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ورب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أحسن الله عاقبتنا وعاقبتكم أدامه الله انتفاءنا وانتفاءكم يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit ñi mbokki taalibe tey alhamdulilah ñoo ngi fii ci Nianga Edy bu màgg bés bu tedd bés boo xam ni dañ ko jagleel sunu wayjur sunu wasila sunu sëriñ sunu kilifa di mawlaana alxaaji Adama Gaye baradallahu idaamahu yan na yàlla seddal ay yaxam ñoo fas koo defal ziyaara ziyaara boo xam ne at mu ne dañ ko doon def ren nag mu tombee ci bés bi nga xam ni muy le le treize lañ ko war a def mooy gàmmu gi le quatorze moo war nekk ziyaara bi incha allah waaw balaa may sore yi dañuy jox ki nga xam ni mooy xalifa kër gi mooy jiite yépp ci loxoom lay jaar di sunu wasila di sunu mag sunu sëriñ sunu lépp nga xam ni sunu yaakaar tey ak ëllëg di Ceerno Alxaaji Mamadou Adama Gueye mu sànni ci ay kàddu noo ngi leen di nuyu da leen siyaare da leen sharxu ñaan da leen ñaanal di ñaan ci yàlla ak yaranta ba Cheikh na Amati Diagne Cheikh Umar Fuutiyu ak képp ka du ne ashhadu an laa ilaaha noo la gërëm dala sant da ñaan ci yàlla bés bi ndax yàlla may na ko mu jàll na ko mu war jàlle noo ngi gërëm nag àdduna jullit ñëpp sabu jullit ñëpp taxaw nañ ci ndax fekkoon Ceerno Adama jullit ñëpp moo xem ca moom mu bëgg jullit ñëpp bëgg ko amul ka dëkkut bésam bi yéen jullit ñi màglee nga ko ba nit màggee rek jullit ñi ñoo ko màgloo ba nit nekkee rek nit ñi ñoo ko def xam nañ ne nag cofeel gi ngay bëggoon ba ngay ba ngay soppoon Ceerno Adama ëlleetee ngay ko sopp lu mu génn li àdduna noo ngee ñaan ci yàlla ak nit fu mënti jógee ak ku bëgg ak ku bëgg ñëpp yenn yàlla defal jàmm yenn yàlla sotti mbaax mbaax ci réew mi yéen ñi amee ñi seen télé ak seen rajo da dox ci jullit ñi da leen réyloo da leen magalloo yéen la yàlla teral kontaanoon ci yow la li ngay waxee li sax tur bi seen tur bi télé bi nag la ngee ko kër ko tuddee kee rek moom doy na nu yëpp sëñ Abdul Aziz kooku doy na fa nekk boo ko tuddee rek même boo ba doo jàng Quraan wala nga romb ma ngee wax walla nga lépp la nga dégg moom day dangay kontaan boo nag noo ngi ñaan yéen yàlla jàppale. jullit ñëpp ñàng idi ak la ko wër ñoom ñëpp ñëw nañ fun dem ak fun toog ak fun taxaw ak fun wax jullit ñoom ñoo la sopp la tax nag ñu soppee noonu mooy ngir Ceerno Adama nooy ngay ñaan ci jullit ñëpp yenn yàlla sopp nooy ngay ñaan ci réew mi ak réew yi jullit yi ak fa jullit mënti nekk ci réew yi yan na defal mbaax mbaax ñu tukki wuti ñu toog ñu fi da bay ak ñu tukki wuti xaalis ak ñu sëy ñi ak ñu bëgg ñu sëy ak xale yi amul ñu dara xamaguñu dara ak ñu ñuy jàng ñu Quraan ñuy jàng école ñëpp yan na yàlla defal mbaax mbaax kontaanoon ba baax kontaanoon ba baax man sax léegi fu ma toll fi naka nit ñi mel ci sëriñ bi ak ci jullit ñi daf ma ko de place sax bu léegi nit ñi ñoo baax biñ baaxut koon mënuñoo mel def ni kontaan nun ba baax yenn ñi borom sababu ñu indi ñu rajo gi yenn la yàlla fay xam naa ne Aliou dégg naa sa wax ci ci biir rajo gi ci rajo gi dégg naa ko du tey dégg naa ko gis naa la konte noonu la kii Alhaji ma la mi na tuddee kii moom mu ngi jógee ba France am nañu jógee Italie am nañu jógee Centre Afrique am na jógee Amérique ñoo ñëpp ñu ngi fi Côte d'Ivoire xamu nañ la fa jógee am nañu jógee Mali ñu ngi fi Mauritanie ak Sénégal ñooñu kam waxuñu seen wax lépp julli ñoom ñu ngi fi daal ñoom ñoom ñu fi kii moom al ñii al ma nekk daa ñoo ñëw al ma nekk ñoom waa français kii al ma nekk daa ñoo ñëw daal alaji ma la mi na la tuddee bon su nay xale yi taaliba ñu nekkoon Centrafrique ñu nekkoon Amérique ñu nekkoon Cameroun ñoom ñëw ni boo na yan lee teral li ñoo wulli ak ñoom li ñoo wut ak la julli ñi di wut ak la xale njaboot yi di wut ñoom ñëpp yéen la yàlla may ko jullit yëpp lu ma fu mu tukkee ak fu ma wut foo yéen a ko yàlla may alaykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu Thierno Aliou ñu ngi lay dellu du la ziar mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon rek yàlla dogal na lii ngeen jot a dégg wala ak ngeen jot koo gis nekk na spécial boo xamante ne ci Cherif Dabakh TV rek nga ko mën a amee yaakaar naa barewul télévision yu ko mën a am ci période bu xatee nii waaye loolu yëpp nag dañ koy delloo ngërëm suñu borom bi waaye rek di delloo tamit ngërëm ak ñaan ki nga xamante ne moo Thierno Mamadou Adama parce que lii yëpp ku ko gis rek xam ne oyofu kilifa la ku amul cër du mën a def lu mel nii oyof xataay bi yëpp nga mën a bàyyi sa lépp nga mën a donte la benn minute la rek mu may ñu ko rek loolu cër la ci yàlla kon nag cër googu yàlla na ko yàlla saxal ci moom mbokki taalibe yi nga xamante ne wax na ñoom ñëpp gis dégg nañ seen kàddu yàlla na yàlla a sàmm yàlla na yàlla a barkeel yàlla yàlla mottali kon mbokk yi dañ leen jox dig daje rek yeneen i jataay yoo xamante ne xew incha allahu taala rawante naak suba ci guddi gi li nga xamante ni mooy gàmmu gi ak aj samedi ci suba si incha allahu taala su 10 heures jotee jëm ba 15 heures ci la ziar bi di am yàlla dogal na incha allah loolu yëpp nag dinañ ko mën a am ci Cherif Dabakh TV fi nga xamante ni mooy Nianga Edy ñu ngi leen di dellu di leen ziar bu baax a baax di leen baalu àq bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.